mais Poula keroog yaa ma doon wax da bëgg a peinture sa cantine bi. waaw booy Café Touba wax nga dégg dem ko bëgg peinture changement ku tagal fee seen cantine mu a rafet. voilà am na sama benn xarit bu ma la woo naa ko nee na mu ngi ñëw su ñëwee ngeen waxtaan. waaw kay merci booy Café Touba yow da nga na la yàlla fay yow sa café bii dafa bu neex ngay jaay. ah Poula keroog du yaa fi waxoon sama café du saf suukar. dem lay tooñ rek yow sa café moo dàq Sénégal xanaa xamoo café balaa moo neex mu ñàkk suukar café birit café birit borom kam-kam yëpp café bi ñuy naan du am suukar jaajëf waay ndigal lu bon waa fis naagis lu dëkk bi wax kulan ah, lépp taw feex sa wax laa wax pulo léegi-léegi mun nga dem waxaale ak moom jaajëf waay pulo naka mu lépp pëccëx mbii daa laa nga ñi ma ndax lépp pëccëx lépp jàmm yow dangay peinture wala dangay pàccax hey booy Café Touba yow peinture kat laal laajoon nga ma indi ay booy géwél taasu gat muy wax fii naan ay pàccax non Pulo ki def lay nuyu rek pëccax du dara eh, Pulo eh, pëccax dara yow tamit mooy mbaa si jàmm hey sam yoon nekkul si li nga wax pàccax booy yow booy da rew réew doo wax lu ànd ak civilisation nga naan pàccax lan mooy pàccax waa Pulo baal ma baal ma jégalu bu wér léegi nañ waxaale ci peinture bi waaw boutique bii laa bëgg si saa si peinture bi dem bëgg nga peinture am loo xam ne ku taxaw si bopp koñ bi day gis rafetaay bi nga am envie ñoo jënd. ah ok couleur rouge bi nga bëgg a changé was ko ko beneen beneen couleur nga si bëgg def yow. lan mooy rouge xanaa yow danga dof wala danga tug yàmba yaa gis rouge boutique bi konku ngay wax wax rouge. eh Poulay eh, lu la jot boutique bi di ruus clair nga naan lan. yow booy lan mooy rouge lii di konku booy yow kamoo dara eh booy si si xonk la t'as parfaitement raison pour du dégg may wax mu naan rouge bu bi konk la laa wax bu mu koolee sa bët yi konk yi laa am dangay tugg yàmba. waa léegi demal peinture tum demal. mais pour la yow rouge mooy xonk de waa kii lu ko dal. waa léegi pare du pare léegi demal peinture tum mi natti peinture. eh pour la eh xoolal bàyyil yooyu nag kii déplacé wu ñëw ba fii nga ko ay peinture. eh booy Café Touba duma moom suma boutique wala eh booy peinture duma bëgg nga peintural eh xam laajuma la <laughs> eh ma ne kaa kaangaar kii ku muy waxal laajuma la demal dinaa jàpp xaw ma dangaa tug man di nga ñëw fi di wax xaw ak si rasa yi di mel ni puubu kani comme espagnol mayga bu fanaan <laughs>